mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy faratal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di faratal di teewlu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé amaat mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di Ansoumana Dione moom Ansoumana Dione nekk président de l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux ñu gën ko xam ci turu ASSAMM Ansou ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM waaye laata loolu sant la gërëm la ci nangu bi nga xamante ne nangu nga ko wuyu ci suñu invitation bi lii waaw Fatou Baba maa ngi am mbégte euh, wuyu ci invitation tey bi euh, fas yéene waxtaan nag Euh, askan wi ci li jëm ci bu si wàllu wér-gu-yaram. Mhm. may nuyu euh, auditeurs yëpp euh, wax dëgg yàlla di nuyu kilifa yi. Mhm. di ndokkel Sénégal yëpp ci weeru koor bi ñu génn di ñaan yàlla suñu borom ma nangul ñu koor gi te mu may ñu teew koy at yu bare bare bari en tout cas suñu kanam. en mhm. su dañuy tàmbaleeg waxtaan li ci coow li nga xamante ne moom la ñu nemmeeku bi ñu nekkee ci weeru avril bi ba léegi jàpp ci li nga xamante moom moo di weeru mai Euh, coow li nag ñu ngi ko duppee lu ñuy wax affaire euh, Astou soxna ñi nga xamante ne benn soxna bu tolloon diggante la daa di génn àdduna foofu ca hôpital bu Louga jamono jooju nag ba léegi mu mel ni ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngatu ci wàllum euh, wérgu yaram bi rawatina sage-femme yi dañu nekk ci guddi gu bët setagul daanaka sax fu mu nekk nii foofu nga jóge ndax danga nga demoon assister ci procès bi le procès boobu nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di famille bi dañuy sàkku ñu daan ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo def yooyu la ñaawteef prison requise contre sage-femme yi nga xamante ne ñoom la ñu duppee procès wu affaire Astou Sokhna tey en sous boo ñu doon dellu si ci li nga xamante ne moom moo jot a xew euh, foofu ca tribunal bi lan nga ñu ci mën a wax. waaw damay euh, sant yàlla julli ci Seydina Mohamed. Euh, sage-femme yooyu ma li ma jàpp mooy ñoom ñeent lañu ñeent sage-femme la ak soxna euh, ak as soxna en tout cas muy juróomi soxna dama jàpp ne juróomi soxna yooyu kenn ki génn àdduna ñeenti ñu nekk kaso euh, ñoom ñëpp dañu nekk ci ab mission euh, nattu la bu yàlla teg seen kaw ngir jigéen fii ci sa Sénégal seen nekkin gën a rafet démb leen doon màggal bëccëgu sage-femme ci àdduna bi mu tombeek Sénégal ñuy àtte ay sage-femme loolu mu nekk loo xam te ni lu yéeme la voilà un procès boo xam te ni ñun liñ ci doon sàkku mooy que le droit soit di et wax dëgg yàlla démb xam-xam génn na ci tribunal bu Louga avocat wu partie civile avocat wu ku ci nekk wax nga Euh, li nga xam ne moom nga gëm. indi nag ay experts teg ay gynécologue ay cardiologue ku ci nekk wax juge bi procureur bi ku ci nekk ñoom ñëpp ci kanamu assistance bu am solo. Euh, association euh, nationale des des sages femmes soxna Biga jiite ko waa SUTSAS bu Mballo Dia Thiam SAMES bu docteur en tout cas Yéri Camara. Mhm. ñun suñu kuréel gi di ASAM man Ansoumana Dior ma teew fa ak. toute la presse mhm. nationale et internationale mhm. mu nekk ne lu am solo loo xam te ne man sama xol dafa sedd euh, maanaam li ma doon séntu gis naa ko démb mu nekk loo xam te ni lu ñëpp doon rafetlu la mhm. tey jii voilà un procès euh, li xew tey jii ñëpp xam nañ ko mooy que ne euh, dañu bëgg a faagaagal ay nit ñoo xam ne nii defuñu dara parce que durant tout le procès kenn gisul fu fuñ taqalee sage femme yi lenn euh, jëkkëru euh, Astu Soxna yaayu Astu Soxna ñoom ñëpp lenn rek moo leen naqari mooy Astu Soxna opéré wuñ ko waaye kenn waxul ne sage femme lii la def donc tey jii man li ma gis mooy yàlla moo ñëw yàlla moo ñëw. ak pexem ak i dogalam ndaxte su fekkente ne Astou soxna ñëw na hôpital ñu recevoir ko defal ko ay perfusion may ko ay garab teg ko ci kaw lal ku ñëw ne kooku kenn defalu ko dara wax dëgg yàlla dangaa wax en lu la neex. waaye Ansu Ansu ñu taxaw foofu rek euh, mu mel ni foofu tamit euh, gis-gis yi mën na fa wute parce que euh, ku ñëw 17h ba deux h certainement jox nañ ko ay premiers soins mais tournure événement bi daanaka tax ci question réponse yi am na kenn koy xamante mu ngi wax ne moom ba muy jël relève ba mu ñëwee di jël relève bi ki ko wuutu dafa fàtte bind li nga xamante moom moo di maanaam. fiche bi nga xamante ne ki koy succéder bu ñëwee ci fiche boobu lay jël pour sukkandiku euh, pour certainement continuer le traitement qu'il faut foofu tamit il faut que nit yi ñu xaw fa euh, teg fa rek euh, ki ngir ñu ñu ñu ñu ñu ñu mettre l'accent aussi foofu 17 heures ba 22 heures jox nañ ko les premier soin mais démb ci procédure bi di ci question réponse yi am na yenn réponse yoo xamante ne buñ ko dégloo du ñu ne toor bi dañ koy jël jox ko li nga xamante na fa un peu laxisme wala faay ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci moment yooyu lee xam nga xam nga mbir yi mbir su xewee ku ci nekk da ngay dem ak sa xol ku ci nekk da ngay dem ak sa xalaat dafay am na li li ñu tuddee supputation waaye bu fekkente ne ay avocat taxaw nañu di wax da ngay xam ne lii baaraam mën nañ ko ci teg man Ansoumana Dione leen rek laa doon wax que le droit soit dit sama bët mën a leer démb nag sama bët leer na te li sama bët leer moom lay moom laa mën a partager ak ni ñi tey jii. Mhm. gis nga euh, sage femme yi dañu déborder ku war a xool ñetti nit ngay xool juróom fukki nit juróom ñaari saal maanaam condition yi ñu liggéey foofu mën na tax nit jël benn euh, benn tension wala benn température. ñu woo ko mu daw dem defi leneen mu fàttee manché na loolu mais donte ne donte ne fàtte na fàtt na mentionné lenn ci kayit yi loolu changé wul dara ci mbir yi. xam nga lan moo am ba am mooy que ne euh, Astou Sokhna dañ ko waroon opéré biñ ko seetee bi ko gynéco bi seetee amul urgence ñu waroon ko opérer le lendemain parce que munoo de opération te defloo euh, defloo VPA euh, VPA bi. mooy wane ne apte nga pour def opération wala apte loo pour def opération opération nekkul ne comme da ngaa tiim euh, sa boolu ceeb rek da ngay ubbeen lekk déedéet euh, dañuy seet ndax mën nga ko wala mënuloo ko comme loolu le lendemain lañ ko waxoon def te hôpital bi kiy def BPA bi moom du ko def ngoon BPA bi ki koy def foofu noonu du ko def ngoon ci suba si la koy def. Mm-hmm. kon sage-femme yi ak lu mënatoon xew ak lu mënatoon xew. ñoom mënul ñu ko defal dara leen rek lañ mënoon mooy xaar ba ci ëllëg sa. Mhm. léegi nag loolu ñuy wax noonu dëgg la dëgg la nit nit dafay fàtte nit dafay juum nit dafay surchargé loolu ñuy wax noonu maanaam benn dafa mel ni dafa mel ni ñu ne euh, nañu bind benn phrase phrase bi bind nañ ko ba mu yegg waaye dañ ci fàtte teg point bi mais point boobu noonu du tee phrase bi. dana baax demain j'irai au marché demain virgule j'irai au marché point defloo virgule defloo point mhm. mais mais sens bi dara sens wu ci mhm. donc point boobu noonu ak virgule boobu noonu mënoo cee sukkandiku pour wax ne point bi ak virgule bi moo yàq liggéey bi mhm. lii nii li fi nekk mooy la gynécologue man wax naa ko gynécologue bi euh, moom ni ñuy monter garde xam nga boo déggee garde mooy yaa ngi toog fii sur place bon rajo réew mi FM vingt quatre heures sur vingt quatre am na ñu fay nekk vingt quatre heures sur vingt quatre même quatre heures matin am na ko fay nekk donc su fekkente ne dañu ne euh, dañu ne médecin bi moo aaye garde dafa fekk ne médecin baa ngi sur place mais médecin yi seen garde c'est par astreinte maanaam doo fa nekk bu problème amee ci ci ci lañ lay woo nga ñëw donc foofu problème personnel dafay poser parce que pour nga mën a aaye garde da ngay am au minimum trois à cinq gynécologues te ñoom ñaari gynéco la ñu am actuellement donc donc mënuñoo am garde boo xam ne day nekk sur place te même bu lii amoon sax même filia y avait une gynécologue buy fanaan ci hôpital ba mënut a def bi tant que bi amul. Mm-hmm. donc donc euh, Astou Sokhna euh, génn na àdduna parce que uniquement opéré wuñ ko. opéré wuñ ko loolu du liggéey sage femme yi gynéco bi ma ko woon def te nee naa la même bu même a guddi googu noonu sax euh, euh, bu bu bu gynéco bi bëggoon def opération bi du du ko mën parce que seul le matin la ñuy def VPA. d'accord kon gis nga tey jii problème moo posé wu. li fi nekk kay mooy nañu nañu bàyyi xel ci suñu structure de santé yi gis nga euh, wax naa ko démb ci benn interview bi mbir mi jeexee Euh, nañu fexe ba euh, suñu ay forces de sécurité et de défense ni ñuy fexe ba maaye euh, tout le territoire nationale ci wàllu policier ci wàllu sapeur ci wàllu armée nañu fexe ba ni place de l'indépendance di amee tout le temps ay alkaati ni Tëngéej rond yi ni ñu amee ay alkaati nañu fexe ba suñu hôpitaux yi dans les services d'urgence muy am personnel bu doy bu ko defee bu urgence amee Euh, ku ñëw rek dina fekk un médecin mais médecin liggéey ba 16 heures ñibbi di xaar problème am ñu woo nga ñëw loolu ça pose problème le personnel de santé gis nga tabax ay hôpitaux baax na waaye ñu fexe ba ci suñu biir hôpitaux yu fi nekk muy Louga muy Thiès muy Tëngéej muy Kaolack muy muy Touba muy fu mënta nekk ñu fexe ba dans les services d'urgence muy am personnel bu doy ci wàllu cardiologie ci wàllu gynécologie ci wàllu pédiatrie ci wàllu ci wàllu ci wàllu ci wàllu ci wàllu. Mm-hmm. Mm-hmm. donc loolu mm-hmm. loolu am na solo. d'accord en su suma ma la euh, déggee bu baax euh, suivre euh, sa sa sa commentaire wala sa analyse mu mel ni six six sages yooyu nekk ci hôpital bu Louga tey di ñoom ñooy victimes yi. dañ leen a tooñ dañ leen a tooñ dañ bi. ay ba rapport bi ministère defoon rapport bi ministère la santé def euh, parce que su problème amee danaan ñan ñooy ñan ñoo fi nekkoon la gynécologue la mooy le docteur Jojo boobu noonu nga xam ne moo aay woon garde jour boobu noonu fii sage-femme yi nekk tey foofu la war nekk dafa war nekk prévenu turam turam ni ngi woon ci rapport bi demoon ministère la santé. Mm. mais ministère de la santé ñoo génnee turam ci rapport bi parce que dañu jàppoon ne ñoom. parce que man man Ansoumana Dione ministère de la santé laa nekk mhm. man ngi fa maa ngi à la DGS mais man askan bi ñoom yitteel su fekkente ne docteur joojo mi woon ci rapport bi ñu jàpp ne bu ñu bu ñu dugalee docteur Diodio ci kaso bi euh, médecin yi euh, euh, professeurs yi danañ jóg yëngal ñu nekkoon kon nañ ko ci rocc mhm. léegi nag loolu moo tax ñu rocc gynéco bi def ko à titre de témoin mais prévenu la waroon doon mm. d'ailleurs sax moom je di dit ci kanamu juge bi juge bi nee na ko yow da ngay fen parce que bi soxna Astou ñàkkee bakkanam biñ ko woowee daf ne sage-femme bi bindal ma certificat de décès bi maa ngi ñëw biñ ko bindee yàgg yàgg na ko def bindal maa ngi ñëw su ñëwee mu signé bi bii saa su am bi bindee kayit bi mu jox ko euh, malade euh, parent yi pour ñu dem yóbbu ko ci morgue bi moom ci kanamu juge yi man maa ngi koy dégg daf ne carrément moom sant ko loolu sant loolu sage-femme bi mm-hmm. bi ko avocat yi wëree biñ ko acculé ñëwaat nangu ne moom moo joxe ndigal pour ñu bind ko. Mm-hmm. mais xool ma lii mais man ci fi ma toog man a Dione man lépp lu aajowoo ci wàllu asam. te man ma war ko signé du ma yónni kenn may demal sama bopp. Mhm. bu dee signature la man may signé sama bopp du du ma ni kenn demal nga jëlal ma su ma ñëwee ba signé déedéet. Mhm. yow buñ la nee malade bi euh, ñàkk na ba kanam lépp loo jàppoon dañ ko war a bàyyi parce que xam ne même bu du dara sax li li li li ba li temps dee rek mooy dëgg. Mhm. nit mën na tànkam lu lépp ba mu des dee parce que dee. Euh, euh, dogalu yàlla la. Mhm. dee bu ñëwee rek da nga war a taxaw. Mhm. kon moom biñ ko annoncé na ko Astou Sokhna faatu na rek dafa war a bàyyi lépp ñëw hôpital. Mhm. bindal boppam signal boppam constatel boppam waaye defu ko mais mu taxaw ci kanam juge bi man sama jëm bopp bi may xool muy wax may naan kii day li muy wax nii nekkul dëgg. te effectivement juge bi ci boppam nee na ko soxna si en tant que gynécologue mu ne ko yow li ngay wax dangay fen kon tey gynécologue bi. dafa waroon dugg sage femme yi tey gis nga ñu ci euh, am na si ñenn si ñoom parce que man man fi dëgg nekk man Ansoumana Dione ku ma xam fi dëgg nekk fa nekk. Mhm. fu dëgg nekkul nekkuma fa. tey li ma gis tey mooy que ñii sage femme yi dina si am ñoo xam ne nii euh, bu ñu génnee ci kaso bi nii bu ñu mën foofu la ñuy jaaree bàyyi liggéey bi parce que liggéey boo xam ni kenn fayu la. Mhm. kenn si signéwul la contrat amuloo contrat. nekk loo fonction publique moo tax sax tey jii président Macky Sall dafa waroon joxe ndigal pour ñu répertorier tout euh, toutes les sages-femmes et infirmiers et des infirmières yooyu liggéey ci biir réew mi fii ci Dakar ak ci àll bi te amuñu contrat nekk ñu fonction publique ñu ñu ñu jël leen dugal leen fonction publique mbaa ñu signé leen ay contrat au ministère de la santé. Mm-hmm. parce que tey jii euh, policiers yi gendarmes yi dañ leen recruter. bu dayulee ñu jël ay AFP di leen fay mais yow nga am un personnel boo xam ne mooy def liggéey bi ba pare kenn fayu leen ñu nekk dans des conditions yoo xam ne yu doy waar bëri na ay sages-femmes yu nekk ci àll bi yu mujj bàyyi am ñoo xam ni ñàkk nañ euh, ñàkk nañ seen ay sëy ñii am nañ ci xel ay sages-femmes yu am feebaru xel parce que da ngay nekk ci benn dëkk pendant cinq ans sa jëkkër euh, doo ko gis mu tekkal la wujju ba nga ñëw nga ñàkk sa liggéey. nga xalaat loolu sa bopp dem kon condition sage femme yi lii dafa war tax ñu bàyyi leen xel sage femme yi ñeent ñeent ñeent ñeent sage femme yi maa ngi ñaan yàlla maa ngi ñaan le président de bu ñu génnee ci kaso bi mu recevoir leen loolu dina nekk si ñoom benn benn benn benn accompagnement psychologique et moral. Mm-hmm. am na si ñoo xam ne nii ci biir kaso bi dañu amoon maanaam dañu amoon yéene xaru parce que ngay sonn ci. ci sa réew ngay sonn pour sa askan ngay sonn ci biir Louga tey ñu jël la dugal la ci kaso bi te loo xam ne ni laalee woo ci amul benn responsable boo xam ne am nga ko ci euh, du plaidoyer yi amul fenn fu ne sage femme yii apporté wuñu assistance à une personne en péril. Mhm. taxaw nañ ko lenn rek li la ñuy wax mooy ba ba muy faatu nekk fa woon. Mhm. mais moom soxna Astou rek nekk fa woon. ñoom ñeent sage-femme yi bu ñu toogoon ci soxna Astou kese mais yoraa dootu dese alors que soxna Astou mi mënuñ ko dara xam nga Fatou Baba xam nga la lay mhm. maanaam nga tiim ku xiif nga tiim ku xiif te mënoo koo jox mu lekk nga naan ko noo muñal muñal loolu amul da ngay fexe da ngay fexe da da ngay fexe nga jox ko mu lekk da fexe. nga dem utali ko mu lekk soo ko mënulee wax dëgg yàlla taxaw bi ngay taxaw sax bi ngay taxaw ci wetam ñi di ko xool dañ koy gën a lor te loolu moo dal chasse femme yi ñu ngi tiim soxna Astou te amuñu lenn lu ko def day sax dans les plaidoiries wax nañ ba mu leer une assistance mooy une prise en charge. Mm-hmm. massa massa massa massa massa taxawul feebar wér da ngay faj après nga bàyyi yàlla kii nag. mënuñu koon faj parce que mënuñu koon opérer. Mhm. kon tey jii problème bi lii moo ci nekk nañ fexe ba sage-femme yii nga xam ne nii dañu leen a lor. Mhm. dañu leen a tooñ. Mhm. wax dëgg yàlla réew mi delloo leen njukkal gannaaw ba parce que tey jii ministère de la santé teewutoon teewutoon ci procès bi. man jàpp naa ne man Ansoumana Dione sama nekk nu euh, bi mu nekk conseiller à la décision de l'action sociale mën naa ne man naa fa nekkaloon ministère de la santé. d'accord. Euh, ministre euh, de la santé bi sax di Abdoulaye Diouf Sarr euh, ginnaaw coow li bi mu amee le 14 avril moom le 28 avril mu daal di organiser benn conférence de presse pas pour xaxar wala pour stigmatiser ñi nga xamante ne ñoom ñooy sage-femme ndax ci ay kàddoom wax na ne def nañu ay jéego yu mucc ayib jëm ci wàllum wér-gu-yaram waaye génnu àdduna di soxna astu noonu nañ ko éviter ce soit pour reprendre ses propos dafa ne euh, un décès maternel évitable loolu aucun décès aucun décès aucun décès n'est évitable mhm. dee moom kenn mënu koo tere am dee bu amee rek am na Abdoulaye Diouf Sarr nag dafa tàmm bu dara amee mu ñëw wax amul loolu mooy wax ci mm-hmm. dafay wax lu amul xam nga kenn laaju la ndax def nañ wala defuñu te sax defuñu Abdoulaye Diouf sax bu taxawee na ministère de la santé def na dara waxul dëgg loolu man yàgg naa ko ko wax mm-hmm. tabax ay hôpitaux loolu ñoom ñoo ci seen bopp ñoom parce que li tax ñuy sawar ci tabax hôpitaux parce que xaalis buñ ciy am marché yi ñuy joxe corruption bi ci biir waaw sama baat ci kaw gis nañ ko fii Serigne Mboup def ko citoyen d'honneur à Kaolack lan moo tax Abdoulaye Diouf Sarr citoyen d'honneur à Kaolack parce que Serigne Mboup am na ay marché yu ko ministère de la santé jox kon hôpitaux yooyu ñuy tabax ñoom ñoo ci gis seen bopp dëgg la askan bi ñoo koy jëriñoo waaye système de santé bi euh, personnel de santé bi matériel euh, équipement yi plateau technique bi boobu leneen la kon moom bu yónnee ay nit ay kilifa laa wax ñu dem def seen rapport rapport boobu rapport tappale la su ma baat ci kaw man ministère de la santé laa nekk man man acteur de santé laa waxuñu dëgg rapport boobu ñu def noonu démb les plaidoiries yi wane na ko waxuñu dëgg li am mooy li am mooy garde bi amuñu personnel bu doy li am mooy sage-femme yi laalewul ci dara parce que sage-femme du opéré kii dañ ko war na kii dañ ko war na opéré est-ce que Sassou mooy opéré donc tey Diouf Sarr la mu wax ne décès bi mën nañ ko éviter ñamu yónni woon ñoo waxul dëgg ci rapport yi te lii nii en tout cas na wax même démb le procureur bi nga xam ne nii moom mooy toppe nee na bu doon euh, ci liñ leen di toppee nii si liñ leen liñ leen di toppee nii daan bu gën a tuuti juróomi at la waaye jigéen ñi seen jàmbaar ak seen bëgg seen réew ak seen bëgg seen hôpital opital la ñuy liggéeyee ku leen xool ak ni nit ñi toogee xam nga Fatou procès bi mi ngi commencé dix heures moins le quart mm. ba neuf ba ba zéro heure cinquante six minutes nit ñaa ngi toog ci salle bi nit ñi ba ñuy xëyee ndëkki ñu reeruñu mm-hmm. ñu ngi toog di bàyyee xel ñeent sage-femme yooyu noonu kon kon kon kon tey ji Abdoulaye Diouf Sarr bu bu taxawee di wax naan ñooñu dañoo surveillé wul ma ne wax nañ ko lu amul dëgg bi mooy dañu war na opéré opéré wuñu tey nga bëgg a jël ñi sacrifier leen waaye mënul nekk parce que dëgg dëgg la. d'accord rapport boobu mu defoon noonu. Mhm. man man wax naa ko. Euh, euh, ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu tëjee euh, fànn boobu rek Ansoumana gis na mhm. que ne depuis début affaire bi ci mois d'avril ba léegi ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngatu ci wàllum wérgu yaram ñoo xam ñu nekk SAMES ànd gësëm ak ñeneen ñi def nañ fi ay mouvement d'humeur boobu ba léegi amal nañ fi ay grève pas plus tard démb rek amal nañu grève général bu 48 heures ngir jàppale ñooñu sage-femme yi nga xamante ne ñoo nekk foofu ci Louga tey jii naka nga jàngatee taxawaay yi nga xamante ne ñoom ñooy way kër dokteur man dama koy rafetlu euh, grève bi ñu grève ni dama koy rafetlu donte ne grève ànduma ci parce que boo nekkee njiit ci ab secteur te mënuloo manager man Abdoulaye Diouf Sarr dama jàppoon ne manager la mais euh, Abdoulaye Diouf Sarr ku ko joxoon ay xar ak ay bëy sax du ko mën a sàmm ay nit comme yow munoo nekk ak ñoom munoo amuloo capacité pour ngeen toog sax ngeen toog rek toog rek pour wax mun a wax sax mun a wax ak nit ñi mais kooku place am nekkul ministère la santé et de l'action sociale gis nga jigéen ñi bu ñuy euh, bu euh, bu ñu nekk hôpital un malade bu ñuy hôpital am métit ki koy faj dafay dékku lépp lu ko malade di def bu ko saagaa dana muñ bu ko tifitee dana muñ bu ko gàjjee dana muñ parce que daf dimbale yow boo nekkee ministère de la santé lu raw nga war def loolu tey jii grève bi nii man lool loolu naa ci ndaxte jamono jii may wax ak yéen nii suma benn mbokk ca Kaarang faatu na bo bo ndax grève bi parce que dañu dem ñu ko ñu leen boo dañ grève ñu wàññeeku ak moom euh, ci ñu yóbbu ko dëkk ba le lendemain ñu demaat avant dañ yegg rek am na ko xam ñàkk ba kanam mm. mais da ngay jàpp ne grève ñoom li jàpp mooy grève bi moo tax mais man li ma wax mooy yàlla bu ñëwee ñëw na. Mm-hmm. donc tey jii seen syndicat yi muy SAMES SUTSAF euh, association des sages-femmes seen taxawaay dafa rafet ndaxte nit ñi dañu leen a bëggoon a jaase ak askan bi tey boo demee tey Louga tey jii Louga soxna baaba mhm. dafa am loo xam ni dafa daw sama yaram. mooy bépp jigéen bu wan bu wan lor ca Louga jamono jii daanaka sa xel dafa dem danga nga stressé eh, am na sax ñu ma wax ne fan yi la fay judd ci ci ay prématuré maanaam ay xale yu judd te seen seen seen waxtu judd jotagul ndax seen ay yaay dafa stressé. ndaxte stress dafay tax xale bi juddu te heure am jotagul nit bu tiitee jigéen bu tollee ci euh, jigéen bu ëmbee am na fu muy toll bu tiitee rek mën na wusin te heure bi en tout cas du jot. Mhm. jigéen ñu bari tey ci Louga tey jii gis na am na benn soxna suñ ma wax dafa ñëw ba ci boor hôpital ba di waxtu ndeysaan mi ngi ëmb mi ngi ci neuvième mois mi ngi naan man su may man su may wusin ay waay man su may wusin fan lay wusinee. xam nga ne xoolal nit ki nit ëmb ñu war ko mën a dooleel ci wàllu psychologie tey mi ngi ni jaaxle stressé mi ngi mi ngi mi ngi ànd ak ak ak fitna nañu fexe ba lii mu dal système de santé bi mun na fi jaaree nërmelu laa même au niveau national ci loo xam te ni mënoon na ñàkk ci ci loo xam ne ci ay waxtaan buñ ko defoon affaire Fatou Ba euh, euh, affaire euh, soxna bi nii. faatu na ba ñu rob ko ba am fukki fan après am na loo xam ne lépp nag ñi ñemewu ma ko sax wax mhm. lépp laa wax ñemewu ma ko wax parce que famille bi fu famille bi nangu woon nañ ba teg lépp ci suuf parce que mbir mi euh, euh, mbir mi mbir dina xew ba ñëpp fàtte ba ba mu am fukki fan nga bëgg ñëwaat ne déedéet damay def plainte parce que dafa am ñu nekk seen ginnaaw dafa am ñu nekk seen ginnaaw pour que lii am waaye nag dëgg moom démb ci plaidoirie yi feeñ na mooy que ne sage-femme yi kenn toppewu leen dara ba ñu laajee ki yaayu ki euh, yaayu asu ak jëkkër asu soxna lan nga meree lan ngay reproché sage-femme lan ngeen di reproché ñu tontu ne parce que opéré wuñu seen doom mais sage-femme yi du ñoom ñu opéré kon tey syndicat yi seen taxawaay man man di jaajëfal. may jaajëfal syndicat yi ci seen laxasaayu ci seen taxaw parce que tey da dama ne président de la République euh, le ministre de la santé les députés la presse képp kuy góor parce que man loolu laa jàpp man man jigéen moom jur man Ansoumana Dione ñëpp jigéen dina leen jur góor jigéen te sage femme moo lay rewle ñun ñëpp yàlla wërsëgal nañu ay doom suñu ay soxna ay sage femme ñoo leen révélé man daw ma taxawu sage femme yi en tant que acteur de santé déedéet dama dem en tant que leader pour dem xool taxaw xool lii xew ba pare nag taxawaat nag di xaar lii xew le onze le onze parce que le onze ñoom ñëpp lañ war a libéré par euh, maanaam euh, dalee la war a dalee la war a relaxé parce que nit ki munoo munoo sanctionné ku deful dara booy sanctionné da ngay def dangay ngay ki def mais ki deful mën na koo sanctionné waxuma la sax sursis laa wax. Mhm. waxuma la sax sursis même sursis buñ leen ko tayee sa seen kaw tooñ lañ leen comme ñoom defuñ dara yoon li mu war atte mooy mu relaxé leen purement et simplement donc syndicat yi man dama di jaajëfal di rafetlu seen taxawaay di ñaawlu nag encore une fois di ñaawlu taxawaayu abla Diouf Sarr. Mhm. ndaxte ak lu mëntoon xew. d'accord man Ansoumana Dione su bu jëloon téléphone am woo ma ne ma Ansoumana yaa ngi Louga ma ne ko waaw mun na ma teewal ma foofu man ministère de naa ci ma teewal ko foofu noonu. wala boo mu yebal nit ne ko dama teewal ma foofu noonu eh, ci bon ci procès bi mais defu ko parce que kilifa dangay nekk kilifa maa nga bañ ko nekk Abdoulaye Diouf Sarr nag dafa wane ne moom nekkul kilifa sage-femme yii duñ ay bandi duñ ay voyou procureur wax na ko demb juge wax nañ ko ñii ay jigéen la ñoo xam ne yu yàgg def lu baax tey lii am bu ko këpp seen kaw te en tout cas askan bi mënuñu ko nangu lenn moo fi nekk mooy diaboliser nañ leen coow li jot na waaye kilifa coow warula fëq man en sumaana avant procès bi dama ne woon xawma kan moo tooñ damay dem toog xool waaye démb li ma gis démb ci tribunal bi démb ma dégg ko mooy sage-femme yi amul lenn lu ñu def en lu ñaaw lenn rek ma fi ñaaw mooy ministre bi nga xam ne nii dafa leen na seetaan taxawu leen sa euh, syndicat yi ñoom seen jëm bopp ñoo jël seen ay avocat fay seen ay avocat euh, kenn moo fayal kenn moo fayal kenn moo fayal euh, pour famille Astou Sokhna loolu ni ko gëstu ban ban ban kilifa moo fay avocat wu asu soxna yi loolu c'est une question. d'accord d'accord Ansoumana Dione nga assisté procès bi wax nga ko mu ngi tàmbali dix heures euh, dem ba li nga xamante ne moom moo di zéro heure euh, ci boobu les. zéro heure cinq zéro boobu les procès procureur bi defa daal di sàkku ñu indi eh, ab ay daan euh, peine d'un an de prison. dont un mois ferme jagleel ko ñeneen ñi nga xamante ne mooy ñeneen ñeenti sages-femmes yi waaye yeneen ñaari sages-femmes yi muy sàkku ñu relaxé leen ndax depuis le début de procès bi ñoom daanaka dañ leen remettre en liberté tey lan mooy sa xalaat ci li nga xamante ne procureur bi sàkku na ko jëm ci sages femme yooyu lee procureur bi la mu sàkku mooy mi ngi rek bëgg a neexal état mi ngi bëgg a neexal ay kilifaam waaye moom si jëmm boppam avocat wu défense bi leeralal na ko démb ne li ngay sàkku nii tegoo ko fenn te man Ansoumana Dione jàpp naa ne tegu ko fenn li ma gëm may juge bi xam ne moom moo war a atte dina atte yoon loolu moom gëm naa ko moom te bu attee yoon ñii daañu leen daañu leen relaxé parce que boo nee ñaar ñii laalu ñëwoon nag astu soxna kon naa leen bàyyi waaye ñii nekkoon nag astu soxna. naa leen teg ay daan te ñi nekkoon nag Astou Sokhna ñooñu ñoo ko doon dimbale ñooñu ñoo ko doon dimbale parce que Astou Sokhna benn instant daf doon rocci euh, perfusion yi ñu ko defaloon sànni ñoom ñoo ñëwaat delloo ko ko booba ana médecin ba ana médecin ba booba ana gynécologue ba mu ngi këram tëdd parce que uniquement hôpital bi amul personnel bu doy ba gynécologue mënu fa garder mm-hmm. même avocat avocat wu euh, avocat wu partie civile bi nee nañu état lañ interpellé ci mbir mii nii. Mhm. kon état moo lajji système bi moo lajji sunu système de santé bi moo feebar président Macky Sall wax na fii ba mu leer ne ne il faut ñuy réformer le système de santé président Macky Sall wax na fii ba mu leer na balaa muy dugalaat benn dërëm ci ci ci ci système de santé bi danañu ko réformer. loolu fa lañ ci toll gis nga bu ñu naxantee gis nga nit bu fekkee ne lekkuloo nga xiif bi xiif na la rey même bu la soo noon joxee lekk waaye bul sagu jëlal nga lekk bala ngaa dee jëlal nga lekk doon doonte ne sa noonu la waaye nga ne non diw sama noon la lekkam du ma ko lekk te yow toog nga ñetti fan yoo xam ne lekkuloo encore ah, loolu boo ko lekkulee mooy yaa ngi xaru suñu système de santé bi moo feebar bu ñuy duma nañu duma système bi amaana nag si système bi état la ñun ñëpp la moo tax man li may sàkk ba fii may wax ak yow nii mooy Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale il faut mu tekki ndombol tànkam il faut président Macky Sall su bëggee jàmm ci Sénégal bi su buggee jàmm ci système de santé bi su buggee wér gu yaramu nit ñi. na teg bopp ministère de la santé nit ko xam ni bëgg na wér-gu-yaramu nit ñi mais Abdoulaye Diouf Sarr wér-gu-yaramu nit ñi intéressé wu ko pour paraphraser Boubacar Diallo moo wax dégg loolu man Ansoumana Dione yàgg naa ko wax Abdoulaye Diouf Sarr kenn moo ko mës a dégg mu wax ci malades mentaux yi ñaata yoon lañ ko waxtaanee fii ci réew mi FM ñaata yoon ñaata yoon ñaata yoon ku dof fi intéressé wul man nit ñi duñ la intéressé kon système bi feebar bi mu feebar tey ji mooy Abdoulaye Diouf Sarr président Macky Sall su bëggee ndam su bëggee ndam laa wax. Mhm. su bëggee askan bi jàpp ko su bëggee askan bi faale ko su bëggee askan bi wekk ko na jële Abdoulaye Diouf Sarr ci bopp ministère la santé man Ansoumana joon ñun lee acteurs de santé tous les travailleurs de la santé bëgguñu Abdoulaye Diouf Sarr comme ministre la santé même les citoyens sénégalais bëggatuñu Abdoulaye Diouf Sarr ministre la santé. d' accord dañuy tëj euh, li nga xamante ne moom lañu ñu ubbee jëm ci affaire euh, affaire asu soxna euh, xuus rek daal di jëm ci li nga xamante ne moom mooy yori ni wala nekk ni ñu ñuy duppee malade mental yi wala malade mentaux yi fii ci Sénégal ci lu yàggul dara rek yaa ngi wax njiitu réew mi Macky Sall bu bëggee bu fekkente ne dafa bëgg am victoire. victoire ci élection législative yi ñu fas yéene amal le 31 juillet 2022 faw rek mu daal di jël dossier yi ñuy dossier malades mentaux yi nga xamante moom mooy les malades mentaux errants ba moo waral sax ngeen di sàkku audience ak njiitu réew mi foofu ca palais de la république pour ngeen présenter ko seeni solution jëm ci lép lu jëm ci xeex problème de société boobule en sumaana nga ñëwal ñu ci lu ni mel ba euh, point ngi nii bu ma amal solo point ngi nii bu ma soxal Abdoulaye Diouf Sarr dem na élection locale pour Yoff ak Dakar fekk na booba lijjantiwul mbirum malade mentaux errant yi ma bind ko message ma ne ko ñun day boo toppatoo malade mentaux yi na la na leer na doo gañe fenn parce que ñun ñooy taxaw pour pour que doo gañe loolu suñ borom dimbali si ba ñu ko ci sant saa bu ñu xëyee dund ci Abdoulaye Diouf saar parce que ñun soit dañuy ànd ak yow mbaa ñu jàmmarloo ak yow yàlla dogal na Abdoulaye Diouf Sarr perte na Yoff perte na Ndakaaru tey Diouf Sarr il est derrière ñun ay ay waxam dépassé nañ ko dañuy xaar mu dem kenn ñoo ministère la santé tey président Macky Sall moom lañ jàkkaarloo nii tey jii président Macky man Ansoumana Dione moom laa jàkkaar lool ñun asam moom lañ jàkkaar jëm ca élection législative lenn mooy am moom président Macky Sall dafay toppatoo dossier malades mentaux yi ñu ànd ak moom ci ci législative yi defu ko ñu jàmmaloo ak moom ci législative te gëm naa ne nañ amee ndam ci kaw Diouf saar mën nañ ko am ndam ci kaw président Macky Sall mhm. waaye nag dañ am yaakaar les contextes yi bokkuñu Abdoulaye Diouf Sarr bu sàgganee Macky Sall fii may wax ak yow nii moom sàgganul de sàgganul. Mhm. sàgganul ndaxte dañ fee amoon benn bëccëg ay ay bëccëgu francophonie jëm ci wàllu feebar bi ñuy wax schizophrénie. Mhm. adduna bi adduna bi yëpp doon ko màggal ren moo nekkoon fukki at ak juróom ñu tànn suñu kuréel gii di ASAM depuis Bordeaux mu jaar Cameroun. nga xam ne Cameroun ñoom ñooy coordonné pour l'Afrique subsaharienne et du centre ñun ñu tànn suñ kuréel gii ñu yëgal ko Abdoulaye Diouf Sarr faale wuñu waaye président Macky Sall ba mu ko yégee dafa jël mbir yi en main dugal ci loxoom le ministre des affaires étrangères Aïssata Tall Sall ba xam ne fa la francophonie logé kooku tamit jël mbir ma en main ba bëccëg boobu noonu ñu amal ko ci Café de mu nekk bëccëg bu am solo. Mm-hmm. kon tey jii ki la jox ndékki jàpp naa ne buñ ko laajee añ danañu jox añ. Mm-hmm. te moom suñu joxe añ moom bu mu wootee moom dana mën reer moom. mooy que ne législative yi ñu jëm président Macky Sall man Ansoumana Dione su ma dalalee ñu toppatoo dossier yu malades mentaux moom bu jógee di askan bi ñun su boobaa duñ wax dara de dañuy maandu rek waaye malades mentaux yi muy toppatoo seen ay mbokk seen ay wayjur seen ay nijaay seen ay maam ñooñu ñooy votel président Macky Sall ci législative yi. Mm-hmm. te boobaa day am ndam. Mm-hmm. beneen bi. mooy malade mentaux yàlla moo leen aaral boppam ku leen jàpp yàlla jàpp la ku leen bàyyi yàlla bàyyi la te président Macky Sall dama ne la fii may wax ak yow nii yàlla dimbali na ko keroog ba mu euh, ba mu joxe ay instructions ne nañ ñu recevoir au palais génne ay moyen jox ñu keroog laa jàpp ne kii day yàlla baaxe na ko wuute nag Abdoulaye Diouf Sarr tey jii dossier euh, bëccëg boobu am nañ ci ndam tey jii dossier mappement errant yi nii mu toppatoo ko rek jeex na te loolu amul ci sikk sàkk ndaxte maa ngi koy jokkoo ak Mahmoud Saleh. Mhm. ma koy gërëm di ko sant moom directeur de cabinet ministre directeur parce que mënoon naa ko woo mu ma loo may mhm. waaye bi ma ko wooyee jot ko moom Mahmoud Saleh mu ne ma en na moment coono gi ngay daj yow. sa sa sa bëgg bi nga bëgg réew mi sa bëgg bi nga bëgg maat manto yi Macky Sall xam na ko président de la yëg na ko. Mhm. te te dina la si jàppale. Mhm. bi nu si jógee ma ne ko suñ audience bi mu ne ma danañu ko programmer Mahmoud Saleh lii la ma ko waxee fan yi président mi ci wàllu investiture ak yooyu dañu xaw a changé seen xaw ma seen seen calendrier waaye bu soobee yàlla yow Ansoumana Dione danañu la programmé mhm. kon. am naa ci yaakaar. Mhm. Euh, loolu bu ko bu ko président Macky defee. Mhm. su suba bat ci kaw de. rien ne l'empêchera de gagner ces législatives. Mhm. ànd maak moom nag Macky fara faralu ma ko ànd moom ànd maak opposition ànd maak kenn ñun dañu libre waaye ku ñu téye ñu ànd ak yow ku ñu bàyyi ñu bala te président Macky Sall téye na suñ benn loxo dañuy xaar. mu téyaat beneen loxo bi ñu ànd moom tànkam ak suñu tànk <laughs> te suñu tànk mooy tànku mbokk ñu amee xel waaye nag man Ansoumana Dione su ma toogee ma ne hé président Macky Sall mi ngi jiite élection de bu ko kenn topp dañ may déggal man comme Abdoulaye Diouf Sall li li li dal nii il me disait yaa ngi bind ci man waa yëngalu ma ma ne ko baax na ba ñu yegg yow doo gañe Dakar doo gañe Yoff te loolu moo ko dal. Mhm. Euh, justement Ansoumana Dione naka nga gisee euh, ni ñuy gérer la gestion donc de la santé mentale par nos autorités. xam nga euh, président Macky Sall ku am yéen la nag ci ñu am feebaru kel depuis mu nekkee premier ministre. Mhm. Abdoulaye Wade nekk na président de la président de la République Idriss Seck nekk premier ministre Abdoulaye Wade dalal ma en boobu Idi ma nekkoon premier ministre Idriss Seck en 2004 bi mag Sall di nekk premier ministre sentre boobu ci Kaolack te président Abdoulaye Wade diggoon ñu ko ci lañ ko commencé tabax fekk na boobu ñun yëg nañ ne am na ñuy def ay pexe ay pexe pour centre Kaolack bi ñu tabax ko Thiès loolu xaw na yéexal mbir mi waaye bi Macky Sall ñëwee. mu tabax mu fexe ba suñu centre bi ñu tabax ko ak Kaolack en ba mu nekkee ba mu nekkee premier ministre lu jëm ci centre bi président Macky Sall signé na ay lettres ci loxoom en tan que premier ministre lettre maa ngi ko fii téye mu yónni ma ay lettres yoo xam ni c'est par rapport à mu nekk mu nekk mu nekk njiiti réew président président Macky Sall di ba bind lettre ko ci loxoom jëm ci centre boobu noonu ko kon nga xam ne mbir mi am na lu ci nekk tey jii ministre de la santé et de l'action sociale moom moo deful liggéeyam ministre de la santé moo deful liggéeyam moom moo toppatoowul mbirum ñu amee feebar xel waaye bu dee bu dee président Macky dong la bu dee président Macky dong la mbir mi sotti na waaye nag buñ ne ne yow yaay ministre de la santé et de l'action sociale te yow yow yow ci sa jëmmi bopp yow yow ci sa jëmmi bopp Abdoulaye Diouf parce que wax naa ko ko saalam kë ci euh, këram nee yow Abdoulaye Diouf Sarr ci kanamu son premier adjoint au maire Abdou ak benn soxna suma àndaloon ma ne ko yaa ngi nii tëdd yow da nga am feebaru xel Abdoulaye Diouf yow wéroo yow yow wéruloo ndax de soo doom a seetaan man Ansoumana Dione may daw sa ginaaw pour ñu toppoo toppatoo jame feebaru xel kon mbir mi bu yemoon ci Macky Sall sotti na waaye nag ministre bi mu fi teg moo gën a feebar ñu amee feebar xel suma baat na ci kaw wéerul de Abdoulaye Diouf Sarr wéerul ndaxte su wéeroon su wéeroon seuls le fous ignorent les malades mentaux il faut être fou pour ignorer les malades mentaux mm-hmm. mais soo nitee soo nitee comme jigéen ñi bu ñu rombee ku amee feebar xel bu ñu tasul seen fulaar dem wodd ko Abdoulaye Diouf Sarr en tant que ministre la santé war na dox ba dàllam xoosu ngir ñu amee feebaru xel ñu mën a faju waaye déedéet tey moom moo taxaw temm ni ñu amee feebaru xel en tout cas duñu faju suñu bëccëg boobu ñu amoon ci hôtel euh, Café de Rome dans le cadre des journées francophones de schizophrénie en tant que ministre de la santé def ci dërëm. Mm-hmm. loolu gàcceel na fekk na boobu ci élection locale yi ci élection locale yi mu jël xaalis di ko sànni à la di di ko sànni par la fenêtre benn soxna su baax nee na ma Abdoulaye Diouf Sarr mere naa ko bàyyi naa ko. ba ma dégg ne dafay maye concert concert ak Wally Seck euh, Aliou Ndiaye bu des bu bu Africa 7 laa gis mu toog ki telem di démontrer ne kii du kilifa ndaxte bu motoon kilifa du maye ay concert kon kooku fookat la caaxaankat nag yàlla du ko jiital ci bopp Ndakaaru. d'accord kon tey santé mhm. mbirum feebaru xel. dafay jaadu président Macky Sall man Ansoumana Dione mu toog ak man ma jox ko ay yoon yoo xam te même au niveau international au niveau mondial de Sénégal dina mën a jouer un rôle extrêmement important dans le domaine de la santé mentale ici au Sénégal en Afrique et dans le reste en tout mu mel ni Ansoumana Dione su ma la déggee eh, gestion wu malade de la santé dafa dellu gannaaw ndax eh, ay année ci ginnaaw Sénégal bokkoon na ci eh, pays yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a taxaw en matière de santé mentale ci Afrique li ko doon firndeel mooy université Cheikh Anta Diop bu Dakar daanaka ñu gën a xarañ ñi foofu la ñuy génn. foofu la ñuy génne bu bu weesoo loolu yi tamit moo xam Cameroun Côte d'Ivoire wala Burkina Faso foofu fii la ñuy jógee dem fa pour exercer te ñoom guddi ñu toll mu mel ni e, dëkk yi di bu ci mel ni Burkina Faso Rwanda pour citer yooyu kese la ñoom dañ ñu devancer bu ñu sukkandikoo e, ci yenn information yi. xam nga man damay rus Gambie gii rek raw nañu. Mm. Gambie gii rek Gambie. Gambie gii bii rek raw nañu ci mbirum santé mentale Mauritanie bii boo demoon hôpital Fann da nga fay fekk euh, ay naar yu bari Sénégal on parle de l'école de Dakar l'école de Dakar fii la ñuy former les psychiatres mm. ay nit daanañ jóge France sax di jàngi see fii di faju see fii fii am nañ université am nañ ENDSS donte ne foofu formé wul euh, ci mbirum santé waaye ñun lu ñu doon sàkku la mais xoolal li fi nekkoon ba li fi nekkoon li fi tubaab bi bàyyi woon ba tey moo fi nekk docteur Sékou Coulibaly nekkoon psychiatre nekk nekk psychiatre nekkoon médecin chef hôpital psychiatrique bu Thiaroye dafay wax naan tout le temps Ansoumana Dione day moo tax état tabax lu bees Ansoumana Dione nañ ko sant mooy kër googu ci Kaolack mais à part kër googu ci Kaolack état bu Sénégal tegul benn brique pour santé mentale wuy Abdoulaye Diouf Sarr léeg-léeg nga dégg maanaam waaw jël nañ ay psychiatre di jël nañ ay euh, ba recruté nañ ay psychiatre ñaata psychiatre lañ recruté ay benn ñaar ñett demal dans les régions demal Kaolack demal Thiès demal Saint-Louis demal dans les hôpitaux régionaux amul fenn fu ñuy fajee feebar xel Touba foo dem amul fu ñuy fajee euh, feebar xel bañ daan inauguré hôpitaux Kaffrine ak Tambacounda ak euh, ak Kédougou ci délégation bi. en tant que conseiller au ministère de la santé dans la ci kaw tribune bi dama daan tooñ ñi ma jege ma leen lii du hôpital lii lii du hôpital parce que hôpital boo xam ne ni amul fu ñuy fajee feebar xel loolu du hôpital hôpital boo ubbee boo ubbee sa bitik boo ubbee sa bitik nga ni yow jaayuloo suukar leneen ngay jaay de mais leneen nga ubbi mais mais du mais du mhm. la neexee nag nga ne man damay jaay boutique waaye du ma jaay cigarette du ma jaay sàngara. Mhm. loolu de delloo ko nangul. Mhm. nga ne yow da ngay ubbi hôpital waaye doo faj doo faj xel yow ay ay tànk ngay faj ay bopp dëgg ay biir ay tànk waaye doo faj bopp te bopp mooy nit. kon yow kay yow da wax rek mais fajoo dara donc santé amuñu sax politique ba tey ba fii may wax ni amuñu politique mm-hmm. maanaam xamuñu lan lañ bëgg parce que jigéen bi boo ko joxee dépense day xam tey lan lay togg te mi ngi koy xam en fonction de li koy jox yow nga xëy joxoo ko dërëm joxoo sa jabar dépense ngay xaar am yaasa wala ngay xaar am am am ceebu jaga wala ngay xaar am am sombi bul xaar dara parce que joxe woo dara loolu nag moo nekk ci santé mentale kenn xamut lan la bëgg. Mhm. bala nga naam naam ne fa ay hôpitaux psychiatriques suñ hôpitaux psychiatriques yi yëpp dañ leen war a tëj parce que coono yi malamanto yi am yëpp hôpitaux psychiatriques gi ñoo ko waral un hôpital psychiatrique est révolu hôpital c'est un hôpital hôpital psychiatrique bu caaro yi dañu wax dindi hôpital bi tuddee ko neneen hôpital neneen mhm. ba nga xam ne si dina am gynécologie dina am maternité ñoom sax tey ñu ngi koy bëgg a essayé parce que boo demee boo demee hôpital Sikati bu Thiaroye am nañ fa ay laboratoire yoo xam ni ñu bari fa la ñuy dem di di def ji seen ay analyse waaye nag war na am tamit euh, cardiologie war na am bépp service bu nekk dans les hôpitaux léegi nag su su ko defee dans les autres hôpitaux que ce soit à Dantec que ce soit à Nabil Choucair à euh, Louga bii ñu jógee nii hôpital bu kaw Kaolack bu ci nekk ñu dugal fa ay service de psychiatrie xool a hôpital régional bu Kaolack amul fu ñuy faje feebaru xel amul fa loolu pour man du hôpital kon tey jii Abdoulaye Diouf Sarr bu mu sonal nit ñi naan way jël nañ ay psychiatre xam nga bu buñ la waxee ne dafa fi dara bul wax ne woy jënd naa euh, euh, gerte caaf juróomi cornet jënd naa bonbon euh, deux cent francs dañ la ne ana ndekki bi ana añ bi ana reer bi loxo kenn laaju la yooyu nga xam ne ni bokkul ci ay démb ataay nañ démb ataay bi kenn laaju la ko kenn soxlawu ko mhm. euh, donc lii lii lii farata bi moom lañ la laaj te farata bi defuloo ko mhm. euh, ñu tëjee ci question bi le tey Ansoumana Dione ba ñu doon defal benn taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom moo di les malades mentaux errants fii ci Sénégal tey ban situation nga ñu ci mën a wax situation bu méttee méttee méttee métti luy métti sama xol lu may lu may tere nelaw guddi lu may luy ëlëm sama bopp luy ëlëm sama xel fii ma dëkk fii am na benn malade mental boo xam ni ni ko yaayam juree depuis plus de vingt ans laa wax samay doom fii la ñuy jàngee seen euh, bi ñu def euh, jardin daal bi ñu def euh, kii préscolaire mhm. di ma ko wax na ma papa fi ñuy jàngee dafa benn map manta boo xam ni yaramu nen lay def ba may wax ak yow ni yaramu nen lay def mhm. ni ko yaayam juree te mag la mhm. benn sër benn sër amul fi mu dëkk fii amul ku fi romb te gisuloo awrawu ku góor kooku doon amee feebaru xel xoolal ma loolu ci xale yu góor yi ci xale yu jigéen yi xale bu ndaw gis awra góor est-ce que loolu jàddu na xool tey jii boo demee pompier rond point pompier malade mental ma fa toog ak ay bagages am yu dul jeex foo dem ba ci bunt palais de la république malade mental mi ngi def benn mbaaram mbaar bu tay waar donc tey jii lii nii mooy situation bi ñi ngi faatu ci mbedd bi nag oto yaa ngi faat ñii euh, ñu ngi leen di sàcc ci euh, ñu mbokk ñii euh, ñu ngi faatu ndax xiif ñii maanaam daal. ñoom ñi ngi dund jaxanama xam nga démb bi ñu waxee non assistance en danger sama xel dem ci Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Diouf dañ ko war a jàpp dugal ci kaso bi ci kaso bi bu doon ci réew bu civilisé la ñu lu yaay ministre de la santé nga nekk fi cinq ans juróomi at say yoon ci ñu amee feebaru xel mm-hmm. bu doon ci réew mu civilisé laa wax dañ lay jël dugal ci kaso bi immeuble yi nga tabax yëpp dañ koy nangu confisqué ko parce que mérité wuloo ko nekkuloo gor nekkuloo gor man Ansoumana Dione ba fii may wax nii ñemewu ma ñemewu ma dawal oto ñemewu dawal oto aw ma terrain aw lenn parce que ñi may toppatoo seen lenn changé wul lan lay doye loolu te li tax nit ñi dégg ma ba tey ñu ngi nii ci mbedd mi di torox président Macky Sall bu ma dalalee benn mbir mooy jiitu mooy kër googu ci Kaolack ñu jox ma ay caabi ñu jox ma ay moyens ma jël ñu amee feebru xel yóbbu leen foofu di leen fekk ñu wér ñu delloo leen ci askan bi ñuy liggéeyal askan wi. Mhm. parce que réew moo xam ne nii dafa war a jëm kanam dofi ci mbedd mi boo boo waruñoo bëri. Mhm. mais bu dofi bëri ci mbedd bi rek mooy réew moomu noonu musiba moo koy dal musiba boobu nag moo tax tey jii xale bu ndaw. faat moromam. Mhm. góor ak jigéen ñi ngi reyante ci dëkk bi nit ñi ñi ngi agressé nit ñaa ngi reyante parce que nit ñi seen bopp yi moo yàqu réew nag bu fekkee ne bopp yi moo yàqu mais réew moom musiba accident yaa ngi am comme sa pas possible bés bu jot nga dégg ñu ne tant de mort tey bi ñu jóg Louga tey jii yàlla moo ñu dafa sutura ñu ci ma ma ci sant yàlla camion malien la ñu dajal. Mhm. sunu minicar waa syndicat SUTSAS ñoo newoon ci biir man ak ñoom mais li xew ci dëkk bi kenn xamul lii yëpp nag mbirum santé mentale yitteelul benn kilifa nag ci ministère de la santé et de l'action sociale ndaxte boo amee Ansoumana Dione comme conseiller laa wax comme conseiller parce que ba fii may wax ak yow man may conseiller wu direction générale bu action sociale. d'accord soxlawuñ soxlawuñ ma soxlawuñu sama xalaat xam nga ni ñuy jubuñu. d'accord. Ansu mu mel nii waxtaan wi am na solo mais li ñu cëraloon ci waxtu bi yegg nañ ca. damay am mbégte damay am mbégte di la sant nag yow Fatou Baba xam naa ne mbirum ñi amee xel euh, bu fekkee na caabi ji yaa yore woon du sonn waaye euh, nang ma ñaanal yàlla audience bi may sàkk ci président Macky Sall yàlla antul ko. Mhm. ndaxte audience boobu rek tey jii gannaaw yàlla moo mën a tax suñu réew mii di Sénégal euh, buñ ne coupe du monde ñëw na dañu jël footballeur yëpp fu mu gën a nekkee gën a xarañ nekk ci àdduna bi dañu indi dajale leen président Macky Sall jox leen drapeau mbirum feebaru xel wóor na président Macky Sall wóor na yéen taskati xibaar yi wóor na Abdoulaye Diouf man may gayndewu santé mentale nañ ma jox drapeau président mac Sall na ma woo dalal ma palais jox ma drapeau pour ñu régler problème appartements yi fii ak ñaari at la wax tout la région de Dakar tout la région de Dakar ak yeneen région yi seen ay appartements ci mbedd mi dootuñ ko gisati fii ak juróomi at fii ak juróomi at Sénégal gi yëpp. malade mentaux dootu fi traîner mission boobu laa bëgg président Macky Sall jox ma drapeau bi bu ma joxee drapeau d'ici ñu ñu jox ma rendez-vous cinq ans bu ma defulee résultat lu la neex nañu def lu la neex nañu wax <laughs> waaye ci ci ci cinq ans yi su ma réglé problème malade mentaux yi nañu ma teg fu ñu teg gaynde gi football yi mhm. mhm. euh, kaddu bi laa bëgg euh, moom la bëgg jeexale mhm. dama bëgg nag yéen gi nga am ci malade mentaux yi yow Fatou Baba nga ñaanal ma président Macky Sall defal ma lii d' accord euh, certainement euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy déglu autorité yi dinañu dinañu dañu dañu dinañu dégg ce ce cri de cœur kon nag ñu ngi ñaanal Ansoumana Dione kii di njiitu réew mi président de la République son excellence Macky Sall euh, daal di koy recevoir comme ni ko ci ñeneen ñi recevoir ko en audience bu ko defee mu wax lépp jëm ci doléance yi nga xamante ne moom moo soxal malade mentaux errant yi fàttali ne yéen a ngi doon déglu seen émission bi di SOS santé SOS santé nag amoon mbégte ak banneex euh, doon dalal ki nga xamante ne moom moo di Ansoumana Dione nekk président de l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance au malades mentaux ñu gën ko xam ci ASAM fàttali ne yéen a ngi doon déglu seen émission bi di SOS santé SOS santé nag Fatou Baba fal moo nekkoon ci micro bi Bachir Cissé nekk ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité